mbir yu dangereux la nañ ko arrêté parce que quand même euh, manifestation boo xamante ni euh, am na démb si jàmm ak salaam. Mm-hmm. vraiment waruñu woon sax di si jéem a boole ay mbir yoo xamante ni euh, ay waxu rebelle ak yu kenn xamul te loolu dafa dafa dafa sensible mm-hmm. mais li ma bëgg oustaz ñu dellu si mooy manifestation bi démb am na te laata mu doon am dañ doon dégg ay nit di wax waa benn bokk yaakaar doon wax ni ñii di woote woote ñu manifestation bëgguñu jàmm ak salaam mm-hmm. mais contraire moo am manifestation bi am na place de l'obélisque avant sax ñoom di manifester dafa tilimoon mais ñoom ba ñu tilim bu fa nekkoon sax dañu ko yóbbaale. exactement bëri woon na si ñoom ñoo xamante ni en même temps ñenn dañ doon marche ñenn ñi di mais ñenn ñi dañ doon ramasser ay ordures est-ce que nekkuñu tey jii di joxe exemple boo xamante ni dañ ko war di ko ne di véhiculer. mais oustaz nga baal ma aussi ma nuyu euh, ñi ñuy seetaan ci euh, YouTube bi ñu ngi toll ci 4000 4200 euh, personnes. jamono jii di ñu teewlu bu ñu matee 6000 rek ñu arrêté émission bi. li li maa la ci oustaz Badiane. Oustaz Badiane Oustaz Badiane fidèle auditeur keppaar gi la. Oustaz Badiane ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. mën nga dem ba <laughs> waaw euh, sa question boobu balaa ma ciy ñëw. sax may ñëw ci euh, rebelle euh, rebelle yooyu ñu doon ñu doon wax. ci ci Madiambal yaa ngi fàttaliku ci 19 mars. bi si di def fële ca. place de l'indépendance place waaw. boobu ne woon nañu. am na ñoo xam dañ doon waajal waajal euh, waaj coup d'état daaneel nguur gi jamono jooju moom coup d'état la gars yi jëloon Cheikh Ndaw mii mm-hmm. eh, wax nga dëgg yow waaw ci ñuy jàppoon la bokk président fans club Walfadjri fans club eh, eh, oustaz boobu li ci garaaw mooy jéggal ma rek <laughs> boobu duma ko bàyyi mu dem li ci garaaw mooy <laughs> non mais c'est grave Cheikh ministre de la justice Mm-hmm. moo dem RTS juróom Tidiane Kassé moo ma woo Tidiane Kassé bu ne ko Walf mm-hmm. ne ma kaay seetaan le ministre de de la justice mi ngi def benn déclaration mm-hmm. ma toog di ko déglu waa ji mu ne dafa am ay jeunes yu doon préparer coup d'état ci Sénégal après ma ne waa mais ñooñu am nañ fidde de d'état Sénégal gii après gars yi lim lim lim Cheikh Ndaw quoi xam nga Cheikh Ndaw lan la. Uh-huh. président Fans Club Walfadjri ab tailleur nekk fii ci ci Grand Yoff. Uh-huh. lim xam nga ka lañ lim après. Uh-huh. Hélène kii nu mu tudd waay ma kii waay ki bokk ci Macky Sall. Thérèse Thérèse Diouf Thérèse Diouf Faye. ñooñu lañ jàpp jàpp ñooñu def ci kaso bi. Mm-hmm. ay an Thérèse ku mu mën a coup d'état <laughs> Thérèse dafa ñëwoon sama kër di ba coup d'état ma lem ko denc. <laughs> exactement Sénégal ñoo bëri ci loolu la moo tax nguur toujours bu dara xewee dañuy bëgg a créer leneen loo xam ne mm. leneen loo xam ne moo ko gën a grave bu ko defee ngeen nekk ci loolu mm. par exemple bu ñu waxee am am na ay rebelle yu ñu jàpp ñu doon ñëw léegi ban critère la ñu xamee ne ay rebelle lañu ndax ci santé yi la ñu xool mm-hmm. wala ci oto yi ñu duggoon ak seen immatricule wala bokk ci seen jaasi yi ñu yore woon dugal ko ci kii wala bokk ci seen kanam yu ñàng yi ak kan moo war a atte loolu est yoon moo mën a dem ba ne kii kat mën nañu ko qualifier en rebelle. mu poser une question <laughs> que parce que booy. <laughs> booy a loo xam ne dafa dafa logique. tuuti maanaam mu nekk lu logique loo xam ne. Hmm. nit war na mën a wax ni war na mën a nekk. dëgg dëgg daal. xale yi nee ay kii ay yooyu boo koy wax da koy harmoniser. ay safaan sax da war a yenn maanaam. parce que bu ñu ne <laughs> jàpp nañu ay rebelle rek dañu naan waa xanaa dañu leen fekkoon ñu yor ay fetel wala ay jaas yi nga ne déedéet nga ne ah xanaa da nga xool seen sant yi ñu ne ah ñii kii kat nii la sant lii la sant wala wala fële la dëkk wala fële la dëkk mu door a nekk rebelle te sant yi nga mun a jàpp ne lañ boo demee si armée nationale la ëppee ñoo fa ëpp parce que parce que waaw voilà yooyu yëpp euh, moo tax côté boobu moom daanaka euh, non événement la daanaka jaarul amul quelque part oustaz man dama naan euh, j'ai jamais été d'accord avec hmm. li Ablaye Wade defoon mooy bi mu hmm. jëlee pouvoir bi ne tere na léegi taskatu xibaar ak kum mënti doon. Mhm. di prononcer aussi. affaire Casamance. non mais sooy xool lii su yi sañ a bind léegi. sañ mhm. koo wax mhm. da nga naan quelque part Ablaye Wade avait parce que une crise comme ça ak li mu ci ay doomu aadama. on la traite avec la légèreté. man j'ai eu la chance euh, euh, fekkee ba ñuy signer les accords de Foundiougne. le ministre de l' de l' époque Ousmane moo ko doon signé ak Abbé Diamacoune Senghor. mais mais hôtel yoo xam ne on les présente comme des chefs rebelles mais c'est des Sénégalais comme yow comme man ak yow. ñoo xam ne il suffit de discuter avec eux tu compte que ni. mbir mi luñ mën a dépassé la jaar ci leneen. donc cette crise là on l'a vécu ak su euh, su Diouf. Wade Macky Sall ñëw il a eu la chance depuis qu'il est président de la République deux mille euh, ba léegi cette crise la bu ñu waxalee yàlla rek. calme na bu baax a baax a baax a baax. Mm, mm. y' a pas de raison que ñuy bàyyi des gens ñu ciy ñu ciy def yenn yi quoi. ñu koy euh, suuxataat di ko kiyaat ba ca topp mooy euh, manifeste bi xam nga Sénégal sénégalais yi ku leen jaawaat leeg sa bopp rek dinañ lu mës a dóor ci xeer yi maanaam peuple sénégalais mu ngi mel ne dafa am lu muy wër te gisu ko bu ko séenee fenn rek mu daw dem fa ne xëy na fii la. Mm-hmm. ñooñu bu ñu ko wooree wala <laughs> wala gisatuñu seen bopp. ñu ñu dal di mel ni ay ay yemb yu tourné waat demaat feneen. Euh, la ñuy euh, la ñuy wër sénégalais yi daje woon démb loolu la maanaam si ay sénégalais yoo xam ne dafa am lu ñuy wër te gisuñu ko ñooñu ñooy ñi doon ñi ñi dajaloo woon démb mais mën nga wax ne dajaloo ñu pour ne diw kese kese moo tax ñu dajal Ousmane Sonko wala ña fa nekkoon ak yu mel noonu. parce que fi Macky Sall la nekk tey bu fekkoon te ne Ousmane moo fa nekk te ñoom gisuñ ci seen bopp. Mhm. Macky Sall la nekk fi fi Ousmane sonk nekk bu ñu wootee itam Sénégalais yi dina continuer waat di waraat di waraat loo xam ne euh, dañu yaakaar fu ñu yaakaar ne foofu la nekk mhm. foofu la moo tax toujours euh, damay euh, gars yi dañ koy faral di wax lu bari waaye dëgg la mooy population bi moo gën a ñor moo gën a ñor politicien. classe politique bi moo leen gën a ñor foofu. parce que population la boo xam ne bu civilisé wu la comme li nga comme li nga doon wax population la boo xam ne boo ko comparé woon ak yeneen population yi yi Moustapha jógee temps yi ci ginnaaw <laughs> ci booru Oromo booru booru booru booru dëkk yooyu nga xam ne dëkk yi kéemaan ñoom la ñu war a tuddee ñàkk yooyu nga xam ne ci ci àll ba lañ lañ nekk ci waxin mm. ñooñu nga xam ne bu ñuy manifester ku nekk yore na jaaseem ku nekk mm-hmm. yore na paakaam ku nekk yore na fetelam bu ñu tasee rek une heure de temps rek ay deret yu bëri tuuru mm-hmm. mais sénégalais bi fii Euh, buy dem manifester buy dem place de l'obélisque mën na am sax jaaykatu ger gi day gën a caaf. Mm. saaf pour mu gë mu jarle. Mm-hmm. jaaykatu ndox bi dem. kiy dem itam démb gis naa ci ci ci manifester kuy kuy jënd crème di séddale. mais bien sûr am nga jaaykatu crème boobu affaire am exactement ak citoyenneté boobu ñu wax ne bi mu paree ñi di for ay mbuus yeeg yu mm-hmm, mel noonu di ko nettoyer mm-hmm. ak gis naa ñoo xam dañu sol ay dra drapeau sénégalais ak yu mel noonu waaw bëri na ci yooyu yëpp yooyu yëpp li muy firnde mooy ne coow li bari na waaye Sénégal. Mhm. Séné sénégalais yaa ngi fi. Mhm. te ñoom itam euh, faruñoo ma dem faruñoo ma sàmm mais ci Sénégal la ñu far. Mhm. te ñoo ñooy majorité bi. damay faral di wax ne toujours bi Sénégal commencé ba léegi président yi fi jaar yëpp. amul président boo xam ne sénégalais la fal. déedéet Senghor. situation mën nga wax ne moo ko fal. moom ña euh, vide la bu mu remplir. Senghor pare fal Abdou Diouf waaw voilà. Euh,

toujours damay faral di wax ne. Mhm. léeg-léeg carte yi ñu doon sànni ci urne yi. di sànnal mhm. diw ay carte ay carte ñu sànni la kart nga ne am na am nga euh, majorité yow yaay régné. Mhm. te sénégalais yi sànni la ko. carte yooyu carte la yoo xam ne bu duggee foofu mën na soppeeku xeer. ku nekk mën na dajjiwaat kees ba. ne ana sama kart mbaa congelé na nekk na xeer mu kii ko sànniwaat la ko yow mi yow mi mu la ko sànniloon. comme comme yaa ngi wax ne. Euh, Euh, euh, sénégalais yi ba léegi dafa am lu ñuy wër. Mhm. gisuñu ko yenn saa yi ñu yaakaar ko ci nit. yaakaar ko fenn yaakaar comme yaakaaroon nañ ko ci Ablaye Wade lool. dem ba ci biir ñu bàyyi ko. ñu bàyyi dem ci leneen xëy na yaakaar boobu lañ amoon ci Macky Sall. Mhm. mais ak Macky Sall précisément est-ce que yaakaaroon ne euh, première erreur bi. Mhm. ak xam naa ma Birame dina ci ñëw après. mooy ne pas comprendre ñi mu ñi mu ñi mu jiite ñan la. parce su ma dee comparer Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk dans l' espace politique. Mhm. ak ñi nga xam ne soo suñu wootee ñoom ñoo leen di wuy si. Mhm. dama naan yaa problème benn mooy soo jëlee yeewi askan wi démb. Mhm. su ma dindee Habib Sy xalifa euh, Sall Aïda Mbodj peut-être. nga xam ne xaw nañ magal tuuti am nañ parcours ci politique. ñi ci des ñëpp. boo jëlee ñoom Ousmane Sonko. Mhm. Barthélémy Déthié Fall Dame Mbodj mhm. Ahmed Aïdara tout le res mhm. c' est des gens yoo xam ne les jeunes sénégalais dañuy identifié wu ci ñoom. absolument ay bojo bojo yi la ñuy wax. di sol ay lacoste booy doole. leur façon de s'habiller ressemble aux jeunes sénégalais. leur façon de parler ressemble aux jeunes sénégalais man démb dama toog jaag ma ne Ousmane Sonko bi muy génn këram mi ngi mel ne Balla Gaye muy génn këram jëm làmb dafa génn benn waaye dajeeg moom tàllal loxo yi mu ñaan. à de ça nga xool la veille ñan ñoo wax ci turu mouvance présidentielle bi mooy Aminata Mbengue Ndiaye man de ñoo dëkk ñoo bokk dëkk mais ab wooteem moom duma ma ko wuji wala Moustapha Niass wala Idrissa Seck mais est-ce que est-ce que Macky Sall xalaat na ne moom la jeunesse sénégalaise mm-hmm. wallaay mënatuñu identifié wu ci ñooñu c'est pas possible. oui oui et dans la mouvance présidentielle. man gëm naa ne y a des gens yoo xam ne tey jii bu ñu taxawoon du ma leen prêter ñu am la même popularité que Ousmane Sonko par exemple mais bu ñu taxawoon y a des jeunes sénégalais yoo xam ne ñooñu mën nañu wax ak ñoom. Mm-hmm. des jeunes sénégalais yoo xam ne ñu ngi ci mouvance présidentielle parfois ñu occuper des postes de responsabilité d'autres qui n'occupent même pas de poste de responsabilité. ku mel la. Fofana mm-hmm. ak ñeneen. Mm-hmm. Fofana sax il est visible parce que dañ koy gis ci médias ak yooyu mais il y a beaucoup de jeunes qui étaient de jeunes cadres qui étaient avec Macky Sall qui aujourd'hui en retrait. Mm-hmm. di fay seen salaire toog noppalu. mais ñooñu man dama gëm ne. village aw ma prétention wax ne nii lay demee mais dama gëm ne ñooñu au moins mën nañoo wax ak ay jeunes sénégalais. comme ni ko Déthié Fall Ousmane Sonko Dame Mbodj keneen ak keneen di waxee. mais quand tu mets devant les jeunes sénégalais Moustapha bi nga xam ne bi muy nekk ministre ñu juddooguñu mhm. quand tu mets devant les Sénégalais Idrissa Seck ak mhm. tous les actes qu'il a posés ces dernières années mhm. quand tu mets devant ces Sénégalais là euh, Aminata Mbengue Ndiaye le discours day yomb trop pour ñi nga xam ne ñoo ne ci opposition xamal xamal tax mu yomb mooy discours bu Ousmane Sonko def démb que ces gens là bëgg ñu def la leçon tey dañoo muucu deretu askan bi depuis 1960 mu ne mu ne ndaw yi yéen ñi toog fii yéen ñëpp yéen a gën a xam li may wax parce que vous l'avez vécu mais ces jeunes sénégalais là su ko Ousmane Sonko waxee xam nga lan lañ ciy teg mhm. est-ce que leen a leer ne li muy wax ni dëgg la wax na seen xalaat mais cré exactement wax na mhm. seen xalaat mhm. mais donc man pour man su ma nekkoon conseiller Macky Sall tey loolu mooy doon sama premier chantier xam nga ñu ko wër génération bi euh, nit ñi ni ñuy juddoo di dee génération yi noonu la ñuy juddoo di dee day am génération progressivement dafa am beneen bu koy remplacer. Mhm. boo adopté bu ci bu njëkk bi na nga continuer ca euh, dangay dem ba dootoo bokkati da ngay dem ba dootoo doo dootoo bokkati. Mhm. te doo ko yëg te nañu xam ne mentalité yi sénégalais yi yore léegi seetal Barthélemy ak euh, langage bi mu doon campagne par exemple pour pour kii bi nga xam ne jeunes bi la doon waxal voilà ba jub mhm. voilà langage yooyu oustaz mënu ko wax mais man naa ko wax. boo jëlee boo jëlee seen bàyyi ñëw na. <laughs> seen seen seen seen seen bàyyi ñëw na maanaam génération lañu ñuy doon bu bees lay doon boo xam ne dafa remplacé. Uh-huh. benn boo xam ne nekkoon na fi te mënoo fexe ba.

personnes yoo xamante ni euh, dañuy wan carrément que ni euh, yeneen rajo ay bajo bajo ñoo seen baay <laughs> du saaga nag de dëgg yàlla nag <laughs> loolu loolu bàyyi koog Barthélémy Dias rek waaw mais euh, la wolof <laughs> xam nga xam nga wolof xam nga ku ne woon ku ne woon ku ne woon Senghor hmm. dina dox ba am maire waaw ah. buy taxaw ñëpp di ko dégg mu naan bajo bajo yi seen baay ñëw na mu ne loolu mënta nekk mais jamono moo loolu waaw jërëjëf jërëjëf en tout cas